mbokk yi bàyyi xel seen chaîne préférée seen njëriñ TV dal leen ak jàmm seen vidéo bu yées dégtal leen kàddu yi sëñ Amsatou Mbàkke bu sëñ Abdul Ahad Mbàkke kàddu yu am solo yi nga xamante ne jëmale na ko ci askanu Sénégal rawatina ci njiitum réew mu senegal Macky Sall Macky Sall ma ñu faloon ci fukki atam ak jeexal lànk bañ a jóge ci boppum réewum Sénégal élection daal dina koy reporté ci di diisoowul waxtaanu nag askan bi nga xam ne ñoo ko faloon ci ay carte ginnaaw bi suñu borom dogalee ne moom faw mu doon quatrième président du Sénégal waaye dafa am koy jaarale mooy peuple bi nga xamante ne ñoo yeewu ca fajar teel xeexal ko daal di takk seen ndigg sànnil ko ay carte ngir mu mën a gañ jongante 2012 yile yonent bi wax ne al fitnatu naima laxana allahu man ay gaza kon ki ñu war a waxal mooy ki jiite réew mi ndax lépp ci loxoom la nekk gënul nit ñi ndey gënul nit ñi bàyyi ëpp leen xam-xam yàlla tànn ko def ko def ko muy buur mu jëte ñëpp nangul ko ko kenn fëkk salu mu tolloon ci ni wan day wàññi mandat yi def ko juróom-juróom ba muy waaj jeexal ñëpp attaque ko ndax yaa waxoon nangam nangam mu ne la waa nangam nangam ba dindiwu ko ñu bàyyi ko mu def juróom-ñaar mu ne beneen mandat mu juróom mu ne bu jeexalee muy bàyyi day bàyyi kon nag bu mu jëfandikoo doole bu mu jëfandikoo sañ-sañ ndax man mii moo ma tasewoon moom dañ may wàcc fee bu tasewoon ak sama kilifa dañ koy wàcc fële bu tasewoon ak ñeneen dañ dañ leen di bàyyi ko mu jàll bañ lay tàngal kafteeru kaw waxuñu la nga naan lépp bañ lay reyoon ndànk te waxuñu nga lekk lépp ndax xajul ci biir. teraanga yi yaa moom kafe gi yaa moom kafteer bi ak teraanga yoo leen reyal nag daa war a doy sëkk comme yor na réew mi fukki at ñaar te jàpp naa ne keneen dootu ko yor fukki at ak ñaar ndax ñaari juróom rek la ñu wax muy fukk ko yor moom ko yor war naa doy loolee buñ taajeem ndox nag ñëpp war caa naan nga naan ñaari pot bëgg a dolli ñetteel nit ñi dañuy tey sa loxo lii moo indi coow li xaw ma nag àq lu waaye moom li mu war a def dañu bëgg ñaawoo dikkee na nga féetewoo rafetal sa wàll ñaawoo gi bëgg a ñëw nag te am na lool. jaas yi fa faju ko firal faju ko ngànnaay faju ko xale yi fi toll nii dara mën leen a dëpp te lépp loo xam ne jaas yi moo ko tëral wala firal moo ko tëral su firal ga tëddee loolu day jógaat kon man waxtaan ak ñi ko seqal ba tënk ndax yonente bee gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da koo wax ne suñ borom da ko wax ne wa amri wa isaa xasam ta fa tawakkal allahi daa jëkk wax sant fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum ولو كنت غزا قليس القلب لانفضوا من حولكم كيرمان يالا موت انغا موك كليفا دا فورا نوي بنوبي دغر ليت بنوبي قات نيا نك بو ني خيتيو كو جيك باي رك غاني غا تمام ميغي خيتيو مبولو كون ما ورا باي mbokk yi bàyyi xel seen chaîne préférée seen njëriñ TV kàddu yooyu ñu leen jot a dégtal kaddu yu am solo yooyu kàddu yi sëñ Amsatu Mbàkke bu sëñ Abdou Lahad Mbàkke la naka jekk moom xaarul ba yëf yi tàng rek muy door a wax moom nii la mës a mel kaddu yi yii la mës di yëkkati ci réewum Sénégal amul par parloo ci fenn Sénégal ci boppam la faral moom nag dunne guléet waaye nag du ñu yéem ndax sëñ Abdou Lahad Mbacke bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ku muy sa wayjur nii rek nga war a mel waaye moom it tamit yëkkati na ay kàddu sensibiliser askan bi waaye nag xam ne bu doon xeex di xëccoo Macky Sall ci boppam moo war a bàyyi ndax askan bi ñoo ko ëpp doole askan boobee ñoo ko fal te ki bi askan boobu ci lay atte ci lay fal ci lay folli kon nag bu mu sagu bu mu xool lenn loo xam ne day rëy ba jàpp ne moom bu delloo ginnaaw dafa néew doole wala déet wala dafa ragal déedéet na ko def ngir jëmmi yàlla mi nga xamante ne moo ko fi teg waaye ngir jëmmi askan bi nga xamante ne ñoom ci boppam xeexal nañ ko ay xeex yu bari moom Macky Sall bu len faté 2011 jafé jafé yi amon nako ci digënté mak Abdoulaye Wade mi nga xamante ni na ci jamono yoy bañu jay ko ba mu wara sax randal élection yi wayé nak askan bi ci boppam ñoo génn xex ba tay ji moom Macky Sall mëna doon président du Sénégal jamono ji nak ku naqaree waxal lay doon ndax ñu ci bari ñi nga xam ñu koy défendre. sen bop rek mo len taxaju a intérêt personnel li personnel nu askan bi faatu ndax it ñaari nit faatoo gum nañ li ngi demb ak tay lolu kep kuy julit ak fu meuna a ci réew mi ak ci bitim réew do ko rafetlu mukk motax kilifa yep wara a addu sen kaddu ni señ am sotu mbàkke ni mu def ndax it lolu rek ay tax senegal meuna am jam Macky Sall ci bopam bu ko leere ne ñep rek jam nañ bëgg mu neex ko mu nakari ko jam rek lay def ci senegal